a Ababacar Fall euh, na nga def. waaw maa ngi fi Elisabeth maa ngi lay fay. ñu ngi lay dalal nga doon secretaire général groupe de recherche et d'appui conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance muy GRADEC tey mhm. coow li fi nekk ci audit de fichier euh, maanaam coow li lëmbe na ñu bëggoon a xam yéen waa GRADEC tey lan ngeen mhm. xalaat ci cabinet bi nga xam ne moom la ñu tànn pour mu auditer fichier bi. waaw xam nga foofu dafa laaj leeral bu ñu war a leeral foofu parce que tànnuñu cabinet boo xam ne dafa war a def maanaam audit bi parce que cabinet bi nga xam ne moom la ñuy euh, wax ne moom mooy def audit bi muy cabinet ERA mm-hmm. cabinet bi deful audit cabinet bi dafa am maanaam contrat ak euh, structure bi nga xam ne moom mooy financer audit bi muy USAID. Mm-hmm. Euh, voilà, qui dépend donc, en tout cas, donc de, de l'ambassade des, des États-Unis. Alors, USAID moom moo financé audit bu USAID nag dafa jël cabinet bi mhm. maanaam wax ko mu def facilitation maanaam mu jàppale leen ci recrutement experts yi donc du cabinet ci boppam moom mooy def donc audit bi parce que cabinet bi cabinet comptable la amul euh, vraiment comme je dis expertise ci wàllu élection cabinet bi nag euh, dafa recruter ay experts te recrutement boobu daf ko def Euh, sukkandiku ci terme de référence yi nga xam ne acteurs yi dañ ci juboo mm-hmm. ñu ne dañu bëgg def donc audit du fichier lii ak lii ak lii ak lii la ñu bëgg a gis ci euh, ci ci fichier bi moom la ñu bëgg a saytu ci évaluation processus électoral bi ñu ne lii ak lii ak lii ak lii la ñu bëgg a saytu loolu ñu bind ko ci benn kayit mu nekk li ñuy terme de référence cabinet bi jël terme de référence bi lancé appel d'offre mu lancé appel d'offre am ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na Euh, ci wàllu élection wala ci wàllu biométrie wala ci wàllu audit wala ci wàllu évaluation processus électoral ñooñu daal di nekk candidat donc cabinet bi moom maanaam dafa tànn bi mu tànnee juróom-ñeenti nit yi dafa leen indi ci kanamu comité de suivi bi daa nekkat ah juróomi euh, juróom-ñeenti nit yi laa tànn ci euh, kii bi nga xam ne moom la ñu joxe woon euh, maanaam critères yi nga xam moom la ñu tëraloon ci euh, terme de référence yi ñii ñoom ñoo remplir conditions yi ñii laa jël. Mhm. donc ñooñu nag ñoom ñoo war a tàmbali audit bi ñooñu dañu am maanaam ku leen di jur lu ñuy chef de mission boo xam ne moom mooy coordonné liggéey ba. Mhm. bu paree ñooñu daal di nangu te dajale seen conclusion daal ne voilà audit audit bi kat def nañ ko. jaar na yoon wala lii lañ ci gis comme rëx-rëx lii lañ ci gis comme lu ñu war a joyanti et cetera et cetera mais du cabinet ERA ci boppam mooy def audit bi. Mhm. tey jii ci ñooñu la nga wax ne tànn nañ leen mooy neuf experts yooyu léegi suñu ci sénégalais ndax li ni mel euh, dal na xel wala euh, mën nañ koo def sans pour autant sénégalais bokk ci euh, experts yooyu nga xam ne ñooy saytu mhm. fichier électoral bi. waa xam nga bu fekkee ne par exemple dañuy defoon ne dañuy def expert dañuy lancer appel d'offre ne appel d'offre national xam nga bu boobaa nitu bitim réew étranger du ci am yoon booba boobaa expert sénégalais yi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci loolu moom mooy ñoom ñooy nekk candidat mm-hmm. mais xam nga mbiru élection dafa nekk loo xam ne nii lu compliqué surtout audit dafa am ay matières yoo xam ne par exemple dafa laaj vraiment xarañ lool ci wàllu technique wàllu bio bio biométrie par exemple tey ni nga léegi euh, dañuy defee par exemple ay carte à nit ñi dañuy jël say empreinte yëpp loolu yëpp dafa laaj ay façon xam-xam yoo xam ne il faut que nit ñu ko xam. Mhm. donc moo tax dañu lancé appel d'offre international boo dee international nag kii expert sénégalais ak kii expert dëkk bitim réew yëpp mën nañ cee bokk. loolu ñëpp bi ñu déposé seen dossier cabinet ba moom moo tànn segg segg daanekat ñi nga xam ne en tout yi ci wàllu par exemple njàng maanaam diplôme. Mhm. ak ci wàllu expérience ñii la ñu yaakaar ne mën nañu def liggéey bi ñu daal di am na nag ay sénégalais yoo xam ne déposé woon nañu bariwuñu donc jëluñu leen bon loolu peut-être même bu fekkee ne donc ñu ngi koy méttitlu mais bon mbiru en fait donc appel d'offre moo mel noonu booy sélectionné quand même il faut que nga nga nga booy booy tànn il faut que nga sélectionné ñëpp duñ leen mën a bokk jël. du mm-hmm. dëgg. Mm-hmm. bon maintenant euh, xëy na am na ñoo xam ne sénégalais yo xam ne xarañ nañu. Euh, euh, déposé wuñu seen candidature parce que yëguñu woon mbir mi am na ñoo xam ne def nañ ko man sama bopp xamoon naa ne am na appel d'offre ci wàllu évaluation processus électoral comme vraiment ci laay liggéey yàgg naa ci noon naa déposé mais dama jàpp ne comme man sama organisation dafa am ñu ñu toogal foofu ci comité de suivi bi te bokk foofu. Mhm. vraiment donc bon loolu day indi conflit d'intérêt moo tax man déposé wu ma candidature. maanaam comité de suivi bi kon tey taxaw na. comité de suivi moom taxaw na comité de suivi moom taxaw na bu yàgg depuis daanaka bi nga xam ne ñu ngi waxtaan ci commission cellulaire bi nga xam moo doon yore affaire dialogue politique bi. Mhm. ci la ñu taxawal comité de suivi bi maanaam pour mu mën a topp mbiru audit bi. lan mooy doon taxawaayam exactement. maanaam taxawaayam ñoom. Mhm. ñoom dañuy maanaam accompagner euh, processus su maanaam audit beeg évaluation bi maanaam experts yi ñu jël. Mhm. bu heure boo xamee ne donc ñu ngi liggéey commencé nañu seen liggéey. fépp fu ñu ci toll dañuy rendre compte comité de suivi dañ ah ñun kat def lii def nañu lii gis nañu lii ñooñu di leen jox ay directives xam nga. Mhm. donc lépp lu ñu def maanaam ñoom dañuy ñëw rendre compte comité de suivi bi. donc ah, loolu moom mooy donc dañuy liggéey directement ak ñoom daal. voilà dañuy liggéey directement parce que boo nee comité de suivi mooy ñooñ dañuy suivre maanaam comme ni ko kii euh, suivre mooy ngay topp nit ki li muy def. Mhm. nit ki la ñuy def ci audite bi. Mhm. bu ñuy xool fichier yi di càmbar. wala évaluation lépp lu ñu gis dañuy ñëw di rendre compte parce que comité de suivi dafay daje ay saa nekk moo xam benn yoon par semaine wala benn yoon par fukki fan ñële kat expert leen kat bon ñun fii la ñu toll fii la ñu toll ci diiru ñetti wala ñeenti weer yi liggéey bi biñ koy defee bon gis nañu léegi gis nañu li bu ko defee ñu mën a waxtaan noonu la war a demee normalement. et justement mu am lu lëndam ci euh, ci xel yi gannaaw nag euh, Toussaint Manga muy député bokk parti démocratique sénégalais am lu mu wax ci cabinet bi nga xam ne moom moo euh, tabb yooyu la expert tey jii ndax li ni mel maanaam crédibilité rapport gi ñuy xaar ci audit bi du ko yàq. man yaakaaruma ko parce que comme ni ma la ko waxee rek cabinet ERA cabinet comptable la ñoom maanaam dañuy liggéey ak ak USAID maanaam seen responsabilité fi mu yem mooy maanaam ñu recruter experts yi maanaam ñu jàpp leen ba ñu am ay experts. Mhm. maintenant nag experts yooyu bu ñu defee seen liggéey am na benn maanaam ñu chef de chef de mission ko xam ne mooy coordonné liggéey bi ñooñu bu ñu paree ñoom ñooy peut-être def seen rapport ñëw ci kanamu comité de suivi ne leen kat liggéey bi ñu santoon nii ak nii la demee gis nañu lii gis nañu lii gis nañu lii. Mhm. affaire bi noonu lay demee maintenant nag la nga xam ne pour man euh, Soussaint Manga wax na ko bon pour man bon aw ci benn ma ma ci dara donc lu ma ci leer mais dama jàpp ne même bu fekkee ne sax ñoom maanaam tuumal nañu cabinet ERA ci maanaam mbiru euh, Karim waat ak maanaam li dafa liggéeyoon ak Antoine Diome ak yooyu parce que ni ñu ko waxee mais ci matière bii nga xam ne moom la ñuy def muy matière électorale. Mm-hmm. cabinet électoral vraiment amu ci implication. te jëlaat expert expert ñoom ñooy def liggéey. tey yéen ngeen yor benn groupe bi nga xam ne day dugal loxoom ci wàllum démocratie participative ak lépp luy bon gouvernance lan mooy seet wala nan ngeen jàngatee euh, li nga xam ne mooy audite gi ñuy waajal. waaw audit pour man dafa ne lu baax la xam nga nag parce que lii problème bi mooy euh, maanaam ñàkkante ñàkk wóolu wóolu diggante bi nga xam ne moom am ci diggante acteur politique yi. Mm-hmm. muy euh, kujje gi ak majorité. bii yoon defe naa ne moom mooy juróomeelu ci li ma jàpp audit boo xam ne ñu ngi koy def diggante 2007 ak léegi boo compté boo ci boolee 2000 diggante 2000 ba léegi def nañu lu war a mat defe naa ne presque juróom-ñaar war tëbal ci juróom-ñetti audit loolu yëpp dafay wan ne mbiru confiance la parce que mbiru élection la heure bu ñu defee par exemple audit. Mhm. la ñuy génnee mooy waa fichier bi kat baax na waaye mënees nañ ko jubbanti xëy na am na 2 pour cent de marge d' erreur nangam audit yëpp loolu la ñuy wax. xam nga malgré coow li li muy bari yëpp donc ce qui veut dire que problème bi est-ce que problème mu réellement donc fichier la je pense que problème mu confiance la parce que boo seetee ci élection yi ñu jógee muy élection présidentielle yi amoon na parenage mm-hmm. ci parrainage bi am na ay candidats yoo xam ne éliminé lañ leen def naa ne ci ñaar fukk ak juróom-ñaari candidats ñaar fukk ak ñaari dañ leen éliminé ñu ci bëri parce que seen parrainage matul ñi seen parrainage baaxul wala ñi ñu électeurs yi ñu joxe parrain yi seen numéro yi baaxul wala fañ leen ne foofu la ñu bindoo bindoo wu ñu foofu ci beneen réew la ñu bindoo ñooñu contesté ko. donc ñu jàpp ne ñoom daal vraiment seen xel tey na ci mbir mi loolu moo tax ñuy def ay audit sur pièce pour xam def évaluation aussi xool kayit yi càmbar ko ak yooyu yëpp quoi. Mm-hmm. xam nga mm-hmm. donc loolu moom daanaka li may wax ne rek problème mu confiance la diggante ak acteur politique yi moo chaque fois ñuy def ay audit ba te audit mën nga ko def léegi nii daal di génne résultat daa nekkat audit bi euh, nu mu tëddi vraiment baax na fichier bi baax na rëq-rëq daanaka presque boo seetee euh, un pour cent la wala deux pour cent mais mën dawal juróom benni weer wala at mais problème bi ñëwaat parce que fichier bi dafa nekk loo xam ne dafa nekk en mouvement. Mhm. xam nga fichier base de données la dañ ciy dugal ay données par exemple dañuy ubbi liste électorale yi bu ñi bindu bees. wala nit ñi nga xam ne dañuy changer seen seen seen seen lieu bu ñu doon voté. Mhm. et cetera ak nit ñi nga xam ne dañ leen di radier donc day am ay mouvement te loolu machine bi du ko defal boppam ay nit ñoo ko koy defal. Mhm. ñoo ko koy defloo du dëgg ay ay nit ay informaticiens ñu nekk ci gannaaw di liggéey. donc fichier bi tey mën na ñëpp mën nañ juboo ne baax na wala rëq-rëq yi bariwul mais nga dawal at vraiment même problème yi dellu siwaat mhm. donc problème yi il faut problème confiance la moo tax ma yàpp ne nit ki li ko mbir mi li ko mën a saafara mooy ñu xool maanaam kuréel boo xam ne kuréel bu jàmbure bu farul fenn mhm. man loolu laa sama xalaat la ku ci mel ni par exemple sena nga xam ne ñoom structure indépendante la autonome boo xam mooy day saju procédure électorale mhm. ñu jox leen wàllu fichier bi ñoom ñu koy gérer am nañu service informatique ña fa nekk ku leen di euh, taal waaw ña fa nekk ña fa nekk xam nga membre Sénat ay membre statutaire fukk ak ñaar lañu président de ñaar mooy tànn président bi ak yeneen membres yi xam ne dañuy jóge ci ay nu mu vraiment ay kuréel mais c'est des personnes yoo xam ne ay ñu indépendant lañu ñu autonome lañu ci seen liggéey waaw mais loolu yëpp waxtaan la rek xam nga mën nañ jël fu mel wala ñu jël ku mel ni par exemple euh, ANSD am nañu ko proposé mooy agence nationale de la statistique wala ñu dénk ko Sénat bu ko defee fichier wu maanaam pour euh, euh, électoral bi. Mm-hmm. ñu dénk ko ñun ministère de l' intérieur continuer moom di yore fichier wu carte d' identité yi parce que yooyu am na ci ay mbiru par exemple secret ay problème yu ci nekk yoo xam ne ne xëy ministère mën na ko continuer gérer. Mm-hmm. à travers la DAF mais lu jëm ci élection. par exemple Sénat di ko gérer directement loolu mën na nekk piste la boo xam ne mën nañ ci mën nañ ci xalaat ah comme mën nañ ko bàyyi tamit ci loxo ministère de l'intérieur mais xool lu ñuy def pour que maanaam parti politique yi ak yi seen bopp gën ci mën a am droit de regard ak contrôle boo xam ne xëy na bon yenn yi duñ ko mën a def wala bu ñu defee par exemple léegi euh, audit bañ nekkat résultat yi lii la am na rëq-rëq yoo xam ne war nañ ko jubbanti mais bu ñu demee ba nga xam ne par exemple dañuy ñaari weer wala benn weer dafa def ci élection yi. Mm-hmm. ñu def lu ñuy wax audit de certification. comme naa xam nga def nañu audit bi léegi nii. Mhm. mais ci diggante bi am na ay mouvement mhm. ci mouvement yi peut-être am na ci loo xam ne lu jaarul yoon wala am na ay rëq ci am bu demee ba élection yi des un mois bala ñuy tirer liste électorale définitive yi ñu def benn audit de certification boo xam ne boobu du du diir bi du yàgg mën nañ ko def ci fukki fan ak juróom wala yooyu rek. pour ñu pour acteurs yi kon loolu mooy firndeel opposition seen i euh, njàkkare yi bi. waaw xam nga fichier li ma lay wax rek maanaam base de données la amul benn done boo xam ne maanaam turu nit wala santam wala benn done boo xam ne mooy ñëw dugal ci boppam nit moo ko ciy dugal. Mhm. du mhm. xam nga yow yaa ngi ci fichier bu fekkee am nga carte électeur. Mhm. xam nga yaa ngi ci fichier bi est-ce que yaa dugal sa bopp ci fichier bi wala est sa tour moo dem dugal waaw oh, xam nga nit a ko ci def yow da nga dem ci commission bindu. ñooñu ñoo jël sa tur dugal sa tur dugal sa adresse dugal sa tur papa sa tur yaay ak fa nga école ba ngay voté. mais loolu machine bi du ko def loolu nit a koy def hmm. nit ki ca liggéey boobu mën na ci juum nit ki ca liggéey boobu mën na ci def naka sulul noonu hmm. xam nga donc dafa nekk mbir moo xam ne bu bu bu complexe la moo tax jàpp naa yi daal war nañ ci wut saafara boo xam ne mooy li solution structurelle boo xam ne day tax maanaam coow fichier vraiment donc jóge fi daayi man parce que mënuñoo chaque fois rek bu ñu war a dem ci élection vraiment ñuy def audit du fichier dèjà xaalis bu bari la ci dem askan bi muy mobiliser ci acteurs yooyu yëpp loolu vraiment pour man yaakaar naa ne war nañu seet daal beneen façon bu ñu mën a doxale pour que coow nit jóge fii une bonne fois pour toutes. Ababacar Fall merci beaucoup. waaw maa ngi lay euh, fay di la euh, delloo gërëm aussi. Mm-hmm. may fàttali suñu auditeurs yi ne ñoo ngi doon dalal secrétaire général bu GRADEC Ababacar merci.